mbokk yi asalaamaaleykum alxaaji mi ngi jëm ak Mame Ndokh TV mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalif général des Tidianes mu ngi noonu ci préparation li nga xamante ni mooy déclaration bi muy waaj def ci préparation li nga xamante ni mooy déclaration bi muy def ci gàmm gi Serigne baa ngi noonu di doog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 aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Sëriñ Ababacar Sy ibn Sëriñ Mansour Sy ibn Seydina wa Mawlana Alaaji Maalik Sy radiyallahu taala anhu xalifa général bi Tijaan maa ngi lay nuyu te di la ziar ci turu président de la république El Hadj Macky Sall mi ñu fi yebal ma ànd ci ak gouverneur de la région de Thiès Makan Mbengue ñu ñëw fekk fii président du conseil départemental Seydou Gueye Touré ak maire Mamadou Diagne Mbengue de Tivaouane sëriñ bi délégation bi nag wuute na ak ñi ñu fi ñëwoon daaw li ko waral mooy mag mi wër àdduna te dugg ci réew mi ci weeru mag bi sëriñ bi maa ngi nuyu mbooloo mu sell bi nga àndal di nuyu mbooleem mu xadam yi ak kilifa yi diine yi nga xam ne yéen a bokk réew mi sëriñ bi maa ngi lay ziar sarak suñu xarit suñu wëllale sëñ Pape Malick Sy Aboubacar ñi nga xam ne daaw ñoo bokk na moom jataay bi di ko ñaanal yàlla mu xaaral ak jàll maa ngi nuyu liggéey ci réew bële gannaaw bi mu jëlee matuwaay yi isim benn sëriñ bi bi mu mag mi dugg dafa dajeeg ñu dëgmal ziar général bu Jaaw nga am ci taxawaay bu am solo ndax ñëpp ñu doon riiral di wut ci Jaaw nga dogal ñu fomm ndaje yemuñ ci loolu moo leen daanaka lu xale bi doon def te mu am ay ndaje ba dogu ci ne nañu topp li kër docteur wax ndaje yi bañ a am muy julli ci jumaa yi jàkk yi la bépp mbooloo la ndaje def ko nag ak responsabilité bu am solo loolu ñooy sëriñ bi jàpp naa ne yow la ñu gis ci kilifa diine bu njëkk a nangoo takk sol masque taxaw ci public loolu it jàngale la ndax ñun ñëpp gis nañ ko dugg nga ci mbooloo xam ne mun laa ñëwee te gëm naa ne daal lu war loolu nag jàpp na nga ko jël ci sa maam di daan Malick Sy ndax fekk na fi mbas di daan Malick Sy fekk na fi mbas te ndax bi tubaab yi digle mu ñàkk nit ñi bañ ci jàngale moom moom mu dem rang nit ñi ko topp ko daal di dem mbas fekkaat na ko bi mu digle ne nañu wax li kër docteur wax te la bindoon benn bataaxal tuddee ko nasihatul iqwaan fi tasbihil abdal moo faram fàcceel ci lépp luy mbas li ñu ciy tere ak li ñu ci dig boo demee jël bi nga di ci bëgg a jeex wala ci bataaxal par boobu bi ñu bëgg a jeex suñ maam Maodo wax na ci ne bu leen wuute ak kër docteur ndax ñoom ñoo am xam-xam man nii di seen ci lay kon sëriñ bi ñu ngi sàkk ci yow ak ñaan ni ñu ko sàkk woon daaw nga ñaanal président Macky Sall ñaanal réew mi nekk ci jàmm nu ko sunu maam Alimaali si daan ñaanalee mbooleem jullit yi yërmande ak jàmm am Alimaali jullit yëpp ci njabootam la ñu bokk moo tax mu ne yërëmal mbooleem jullit yi yow sa borom ndax yow a yërëmal nit yaa leen bind te yaa leen yar kon nag yërëmal nit yi jaar jooju mu ngi ci yéen ñi ko fi nekkal loolu moo tax sa maam woote bés bu mag bii ci gàmmu ngir cofeelam ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak yërëm xeetu Muhammad alayhi salaatu wa salaam mu taalif ci ay téere yoo xam ne yëpp dañuy xamle jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak aw doxalinam ngir nit ñi roy ko moom daal dafa tegoon tànkam ci farata ak sunna boole ci làmboo mboolem melu yu rafet li ñu bëgg ci nit yàlla maam Maodo kaana fujaan aliman adilan nekkoon na jàmbaari islam nekkoon na borom xam-xam bu mag te nekkoon na bu maanu loolu lépp nag dafay tegtale doon gi mu doon doon bi yonent alayhi salaatu wasalaam al ulamaahu warasatul anbiyaa yi borom xam-xam yi doon doon yeneen yi bokk na ci ñaan yi mu doon ñaan yàlla moom ay Maalik maam ay Maalik mu ne yàllaawu yaa xayu yaa xayuumu yàllaawu yaa kaasifa durri wal balwaayi yàllaaw yow yàlla mu ngi dund ko faw te doo fi jóge yow yàlla mi nga xam ne yaa fi sax ba faw yow yàlla mi wàññi lor yi ak balaay gannaaw loolu sëriñ bi maa ngi lay ndokkeel ci bés bu tedd bii ci bés bu mag bii muy bés buy màggal gane àdduna gën ci mbindeef seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ne yàlla moo ko màggal su ma yeboo sax ne wax ne lii ñu koy defal moom muy gàmm suñu boroom moo ko ko jëkke defal ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam leeram la yàlla njëkk a bind bind ci asamaanu ci suuf bi juróom génn ci mbindeef yëpp lii nag ci baatin la waaye ci zaahir mi ngi gane àdduna fukki at fukki fan ak ñaar ci weer bi ñuy nekk mu ngi rafetlu awal tombé ak bésu ñeey ci atum tombé bésu tey bi ci at ci atum ñeey tolloo cinq cent soixante moom ci juddu yonent bi yàlla ci saa ca Makka danu kaar bés bi mu gane àdduna àdduna yëpp leer fenk ak sow adduna bi bés ba mala yi sax seen biir ñuy noppale kon yàlla yàlla fayal ñu suñu maam Seydina Alaaji Maalik Si moom mi ñu baaxee lii njabootam taxawee ko ci gannaawam taxawaay bu rafet bu yóbbu ko tey ci dimension bii sëriñ bi président Macky Sall nee na wax na mu bi tàmbali woon yëpp dana ko àggale mu jëm ci wàllu hôpital jëm ci wàllu assainissement jëm ci wàllu tali jëm ci wàllu ndox jëm ci wàllu courant ak dëkk bi moo ko laaj lépp lu dëkk bi soxla muy ñoroon lu ëpp li ñu daan am ci mboolem xeetu meññeef bi ñu jiwoon ci réew ci barke bés yi nga ñaanal ñu ñu ko ginnaaw loolu sëñ bi ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool tëwér